ci diggante Zalba Mbaye écurie Bawol ak Boy Bawol écurie Dóor Dóoraat Boy Bawol moo féete seen góor Zalba Mbaye moo féete ndeyjoor Habib bi sifflé na Habib ngi wax ñoom Habib baa ngi noonu sànni ko woon Habib bi nee ko sànni ko Zalba Mbaye am na lu Bawol a moo féete gauche Zalba Mbaye féete droite Zalba Mbaye Boy Bawol Zalba Mbaye écurie Bawol mbooloo Boy Baol équipe yi dóor dóoraat maa ngi nuyu Zos Garga Mbossé ñoom maa ngi nuyu Boy Baol moo ñu woon ginnaaw Zal Bambey nga dox di mel ni kuy njaab Zal Bambey Boy Baol Zal Bambey tax na dëggal boppam meb na léegi def na déplacement Zal Bambey Boy Baol Boy Baol ngi concentré woon topp ko Zal Bambey Boy Baol. Boy Baol la ñu jàkkaarloo léegi Zal Bambey moo ñu won Zal Bambey bu ko neexee mu daw dellusiwaat dafa waane Zal Bambey Boy Baol Boy Baol wàcc na ba toll ak moom mu xaw a waaye dalul Zal Bambey moo ñu won Zal Bambey Boy Baol ah Boy Baol da koo ñeme Zal Bambey Boy Baol Boy Baol écrit doo doo Sal Boy Baol door na ko léegi Boy Baol door na ko léegi Sal Bambay Boy Baol am nga combat tey xale bi nga xamante ni combat bu mu bëree na la top 5 kookoy Boy Baol écrit doo doo dina am ci moom yaakaar Sal Bambay door na ko léegi jàppante nañu jàppante nañu Boy Baol dafa mën a bëree wet moo ngi bëree wëndeeloo moom ay waay daw làmb làmb gi noonu. Boy Baol jàpp na ñaari loxo de jàpp na benn saal ba mbay bonn Boy Baol loolu wóorul Boy Baol Boy Baol loolu wóorul Boy Baol Boy Baol saal ba mbay saal ba mbay moo ñu woon ginnaaw Boy Baol lañ jàkkaar lool Boy Baol ko ëñ benn loxo bi Boy Baol dafa mën a bëree wet doon na léegi fekkil Boy Baol doon na léegi fekkil ñoom ñaar ko nekk sa loxo gi ci ngemb zongalee na ko dafa diis zongalee na ko déet déet déet Boy Baol Boy Baol def loolu dafa diis Boy Baol Zal Baba Mbaye Boy Baol Zal Baba Mbaye Boy Baol Zal Baba Mbaye Boy Baol da ko bëgg a songale da koy caxabal yëkkati na ko yëkkati na ko daf leen dànk laa mujjee stade baa toj Boy Baol Zal Baba Mbaye Boy Boy Baol daan na Zalba Mbaye Boy Baol daan na Zalba Mbaye Zalba Mbaye da ko doon bëgg a mboot daan na Zalba Mbaye Boy Baol daan na Zalba Mbaye Boy mën a bëre Fatima noo gisee lamb ji Fatima. waa lamb ni ma ko gisee gis nga Boy Baol 2 dafa am say sec mbër mu am say la ndax boo gisee zongale bi da koo tenté deux fois. demul mu tàndawaat nga gis kii moo déclenché action bi kii nga xam xamante ne moom mooy euh, Zalba Mbaye mais daal da koo pëtaxal bàyyi ko mu dem gis nga xanaa yaa ngi naan ma xamu ko mais xale bi maîtriser na ko am ko am sañ-sañ la waa parcelle nañ ko bàyyi xel moom mooy booy bawol xale bu mën a béyee la foo ñemee dëggal boppam chaque jour bu ñëwee du xam ne adversaire am andi mais moom li mu andi loolu lay imposé loolu lay imposé na boo gisee si taxawaay Zalba Mbaye ba ko xaw a ëpp tuuti mais boo gisee da koo xaw a ëpp masse tuuti mais du doole ndax zongale zongale na ko wet la ko jox nga gis xaw naa diis mais xel bi dafa tànte te kii comme que ki tànte kay dafa jël risque jël na risque daan na. tey Fatima info réew mi moo nekkoon sama consultant waaw Wassare kontaan nañ ci yow. nga nekk frère bu baax bu mën a partager yow ñu lay ñaanal ndax honnêtement ñu ngi lay seetaan. te am nañ cofeel ci yow te xam nañ ni allah fi nga teg sa tànk foofu la kon ñun ñëpp ñoo bokk affaire bi yal nañu yàlla may ñun ñun ñëpp yal nañu yàlla may jàmm. maa ngi seen ginnaaw. non baa ñu nekk sa ginnaaw ndax maa ngi seen jigéen. kontaan naa ci